salaatu wasalaatu wasalaamu ala rasulillah bokk yi ñu bokk sant borom bi subhanahu wa taala seere na amul benn bu dul war a jaam bu dul moom noo ngi baalu àq ñëpp te di leen baalu àq tey ñaan suñu borom bokk ñu jéggal ñu ñëpp bokk yi sunu xutba ñu ngi ko jële ci ñu ngi ko jëme ñu ngi ko jëme ci amaanatul xawli wal amal sàmm sa kaddu ak sab liggéey mooy moom lañ tuddee amaana amaanatul xawli mooy maanaam sàmm sa kaddu ci wolof mooy sàmm sa kaddu bu dee amaanatul amali mooy sàmm sab liggéey doomu boo gis ci kaw lim am mooy kàddoom su ñàkkee kàddoom amatul dara moo tax ab julli dafa war a di sàmm kàddoom ab jullit dafa war di sàmm kàddoom saa su lépp luy wax rekk bala mu ko waxit mu xool la muy wax ndax lu muy man la wala lu muy jëflaw wala lu muy jëfla bokk yi bokk na ci li gën a feeñ ci feeñu waayu diine lislaam ak jukko yi nga xam ne tamit bokk na ci jukko yi gën a yitteel lislaam mooy jukko yi kóolute amaane mooy kóolute mooy xulqul amaana mooy jukkoy kóolute jukkoy kóolute yooyu nag mooy yi nga xam ne mooy tabax am réew mooy tabaxit ab dëkk mooy taxit mooy defarit melokaanu doomu adama amul benn la benn réew boo xam ne réew ma mën naa avancer lu dul ñoñ réew ma sàmm seen i benn réew ma mën a avancer lu dul ñoñ réew ma sàmm seen i benn réew tamit mënta am ndëgër laay lu dul ñene ca dëkk réew ma cay jëflante sàmm seen i kàddu kon mu mel ne sàmm kàddu ci doomu aadama muy amaanatul xawli lu am solo la moo tax ñi nga xam ne ñooy njiiti réew yi responsabilité bi njëkk a yor mooy na ni sàmm seen i kàddu lépp luñ waxit ñu fas yéenee jëfe loolu ñi nga xam ne ay politiciens la ñoom it ñu sàmm seeni kàddu ci seeni askan bàyyi digg bu metti bi te duñ ko def bàyyi wax loo xam ne yow bëgg a falu moo tax nga di ko wax waaye bir na la boo fala doo ko def te li ëpp ci politiciens yi saa yu campagne jotee ñuy campagne loolu ne la waaye ku fare fàtte ña nga xam ne ñoo la loolu nag ñàkk sàmm sa kàddu ci la bokk jamono ji ñu toll nag nga xam ne daanaka léegi ñu dem ci ay élection lu waaye mën a lu waaye bëgg a wax da ko wax lu waaye mën a diggee da ko diggee waaye bis bu la falee jox la réew ma wala jox la mairie ba wala jox la quartier ba daanaka ña la faloon wala ña la wateeloon dootuñu gis ci lan waxoon la nga waxoon ci nga jëf kon julli day sàmm kàddoom moo waral suñu borom wax ne maa ngi la ñuy digal na ngeen di delloo amaanaat yi amaanaat yi mooy amaanaa di dafa am ay façon mooy dénkaana yi wala kóolute yi dee leen ko delloo ci seeni borom waaye nag su ngeen yi atte su ngeen di atte na ngeen atte ci ak maan kon loolu moom justice yi ñoo ko moom ak ñi nga xam ne ay kilifa lañ ba noppi di atte se ñeen yëlif ñooñu am nañ ci responsabilité bu ngeen yi atte na ngeen atte ci maandu atte ci maandu bokk yi lu am solo la waaye atta ci parparloo loolu diine da ko santaane wu noo ngi jaajëfal ci benn vidéo bu ma gis sëñ Ibrahima Mbay bu maam Cheikh bu bu sëriñ Sam Mbay ci kaddu yu am solo lu mu wax benn politicien bu fa ñëwoon ci dem kaddu yooyu wër na àdduna bépp bokk yi loolu la xaar ci ku yor kaddu ki kër wala kaddu kilifa wala kaddu woo xam da nga ko war wax nit ki ak nu mën a toll ak pouvoir bu mu mën a yor dëgg rek kay dëgg su dëgg wax dëgg jotee moom danga koy wax waaye sa Ibrahima lu am solo la wax ne ko ñetti kàddu yi ma lay njëkk a wax mooy dund bi cher te askan wee wax askan wee ko wax te ku ne xam ne la dund bi na courant bi kazalik fi mu toll nii woyefal bi ñu doon wax woyefal fi mu toll tudd tur woyefal léegi lu mu tudd mooy jafeel mën naa koo tudda jafeel woyefal tudd daa daa gën a diis diisal la tudd boobu woyefal léegi diisal la tudd woyefal ku ne xam ne ne courant bi yokkul kon dund tamit cher na kon waaye woyefal diisal la tudd léegi tudd tuddatul woyefal Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima wax xamal ko noo ko nag dund jafe-jafe bi nga xam ne moom la askan wi jaaman bi ci jiitu mooy dund ca kam doon waxal mooy premier ministre bi muy benn ñaareel ba mu ne ko suñ doom yi di jëm ci gaal kon nan fexe ban ban ba nan toogee te ci dee waaye bi ci gën a bi ma ci gën a amaliteel mooy siis siis bu socialu na ko siis siis réew mii dafa socialu nan fexe ba siis siis bi social siis siis nag bu socialu mooy kumba am nday kumba amul baay te gis ngeen li ñu dund ci réew mi kumba am nday kumba amul baay la ñu dund ci réew mi ab siis siis nag bu socialu la ka neex rek lay àtt kaddu si Ibrahima bay googu bu bu siñ saam doñu doomu siñ saam jooju kaddu gu wër adduna bi la ci am njariñ moom de bu sëñ Sam dellu si woon du soppi dox du soppi toogaayam du soppi doxwaayam bàyyam ku ne xamoon na ko ci diine ja ci lislaam bi ak ñeme dëgg gi ñeme woon dëgg daan ko wax loolu mooy amaanatul xaw kaddu da kaddu danga koy wax ci yàlla rek tax wuti ca lu muy seet ka fa toog lu ko neex wala di ko tàcc wala nangam nang dëgg ci askan wi dund ak li am ci biir askan wi lana ko fang mu di ko dégg ba bu ëllëgee bu fa jugee xam ko amaana mu jëf ko mu ñàkk ka loolu la xaal responsabilité bu yor kaddu wala nga yor kaddu diine wala nga yor kaddu lislaam waaye melet yi enveloppe bi tëj sa giñum tax nga bañ a wax bu àllëgee ngir dëggu yàlla ngir ngir nga nopp ci dëggu yàlla gi ku koy def sa yor responsabilité bu àllëgee yàlla dana ko laaj nañ ci bàyyi xel kon amaanatul xawli mbokk yi moo tax su mboroom wax ne yéen attakat yi su ngeen di att na ngeen atta ci maandu na ngeen atta ci maandu mbokk baat boobu nag muy amaana mu fassiru na yi dañ koo séddale ci ay xaaj bu kóolute sa diggante ak sa borom subhanahu wa taala mooy lépp loo xam ne ahdi la mooy dël bu dox sa diggante sa boroom nga fas yéene koo jëf mooy di jëf ndigali yàlla yi tey macindu ko tere suñu borom subhanahu wa waaye nag it masaayir yi nga xam ne sa cër da koy yëg ca muy masaayir yu am njariñ yëguwaay yu am njariñ yoo xam ne dalay jegeloo sa borom loolu amaana la ci nga def ñaareel bi mooy amaana bi dox sa diggante doomu aadama yi yow jullit bi doomu aadama ak moroomu doomu aadama am kóoluteef gi dox sa diggante ak moom nit ki la ko war a sàmm bi ci njëkk mooy nit bu la dénkee alalam ba soxla alalam nga delloo wat ko alalam ak lu mu la mën a dénk nag léegi-léegi nag gaa yi ci boppam dañuy yàkkamti ku leen dénk ban jëfandikoo lañ leen dénk nga ba di ko soxla leen leen dénk mu naan ma xaaral suba ba suba danaa ko lijjanti nit ki bu fekkee nit di laa wóolu ba dénk la alalam yow jëlal alalam nga tegal ko ci barab ndax xamoo kañ la koy soxla loolu amaana la boo xam ne diggante doomu aadama la ak moromu doomu aadama mooy fexe ba di delloo yi nga xam ne ay wada ay leen bokk na ci tamit mooy ñàkk a kooj mooy xis ci say wax ak ci say jëf mooy lépp loo xam ne yaa ngi koy jëflante ak doomu adama bi nay lu leer bu dee jaay ak jënd bu ca xat yi ak xilaa ba am neexul làmmiñ ba tax nga jaay ko ca la ngay wax dara du ca def nangam la ca la ngay waxee du nangam bu mu ca bañaam na ca bañaam na ca bañaam bu deem soow la nga rax ko ba bam ba ndox ma bari nga ne ko lépp soow la fekk na ndox ma ëpp soow ma yooyu mooy xis bu dee xadi bu dee ba ak xadia mooy maanaam neexul làmmiñ war ci ci ngay jaay léeg-léeg nit aw làmmiñam lay jaay waaye waaye la muy jaay dara du ca dëkk original la du original fekk farce la original la te fekk na farce la baax na fekk baaxul amul sikk fekk am na sikk xam nga sikk si bëgg koo dem yooyu yëpp ay amaana la yoo xam ne diggante jullit bi ak mbokkum jullitam la na ci bàyyi xel beneen bi ci des ci diggante jullit bi ak mbokkum jullitam ci tënk mooy di nëbbu secret bokk yi nit bu dikkee war a secret nëbbal ko secret waaye nit ki ñëw wax la secret nga dem nettali ca nettali ko kenn ca ne gaa sa waay kat dana mën bu ko kenn yëg kon nag yéen bu ko kenn yëg aha yow kii yëg bi léegi mu kon nit bu ne waxee secret nëbbal ko secret gaa yi ne kenn bëtu secret jàmm moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon bokk na ci ñi gën a bon place ëllëg yowmal am akbar borom kër ak soxnaam kenn ku ci nekk wax sa sekkaray morom borom kër ba dem wax sekkaray soxna sa soxna sa dem wax sekkaray borom kër moo tax bërëm kër ak soxna li li ñuy waxtaanee ak sekkaray yi séq kenn warut a dox ci mbedd di ko dégg léegi nag ñoom ñaar bu amee problème kenn ku ci nekk wax sa ay bi morom sullen sullante ko yaa defoon nangam yaa waxoon nangam yaa ma waxoon nangam yaa ma waxoon nangam su boobaa yonent bi sansam nee na ñoom ñaar képp ku ci def loolu bokk nañ te gën a bon place àll ak xam ne akbar kon xifsul amaana xifsul sirr nëbbu secret dafa baax kon nañu nëbbu nañu nëbbandal suñu biir suñu secret nit bu la wala ba wax la secret bu mu dox mukk di ko gis ci mbedd léegi nag daanaka ko ci wax sa secret mu tasaare ko xanaa diw la mu wax la mu def nangam nangam loolu bokk yi nan koy moytandiku ak yeneen ak yeneen yu mel noonu nit it war naa am amaana ci jëmi boppam moom ci boppam kóolute ci jëmi boppam mooy doomu bu ci nekk bul tànnal sa lay lor bul tànn sa bopp di lu amalul njariñ del tànn la gën a baax ca yow ak da la amal njariñ loolu amaan na la ci sa jëmi bopp bu dee ci wàllu diine kazalika bu dee ci wàllu adduna kazalika li ngay tànn ci diine ji ne doon al aslah wal anfa li ngay tànn ci adduna bi di noonu al aslah wal anfa loolu aman la ci jëmi boppi doomu aadama bi waaye bul jëf bul jiital bépp jëf benn jëf boo xam ne dala indi loru àll ak loru tey doomu aadama bul jëf na jëf-jëf joo xam ne da koy amal njariñal tey ak ëllëg waaye bu mu jëf-jëf joo xam ne da koy indi loru tey ak ëllëg su boobaa nekkatul amaana ci waaye lu koy lor lay doon bokk yi jukkoy amaana buñ ci dee wax rek di ci misaal doy nañu misaal ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam koroj bi nga xamee ne su borom digal na ko mu génn dem xaarul xaraam ànd ak Seydina Abubakar Sadiq Seydina Ali la woo mu tëdd ci lal ba ña ko doon dénk gëmuñu yàlla ay yéefar lan ndénkaane lu nekk mu ne ko diw moom lii diw moom lii diw moom lii diw moom te ku dikk na nga ko jox ndénkam ndénkaane te xoolal xoolal ñoo xam ne duñu ay jullit ay yëfar lañu dénk la yow mi woote te yow gëmuñu la yow gëmuñu la yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaay woote di leen dugg ci lislaam nanga wuñoo dugg ci lislaam te kuy dénk yow la dikk dénk la te képp ku la dénk lan la dénk bu ko xàmmee bu dikkee nan nga koy delloowaat koro bi Seydina Ali tëddee ci lal bi ñu tëg guddi ñëw biñ dikkee xool ubbi gis ñu fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk Seydina Ali tëddee ci lal bi ànd yi ci boppam dafa leen delloo kenn ku ci nekk la la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dénkoon bokk yi lool mooy kóolu ci loolu mooy kóolu waaye ñu dénk la sawaay ci sa nga ne sawaay lii xéewal ñëw na yàlla yéen a fi xéewal léegi la gars yi loolu la ñu def da ngay soxla da ngay am soxla cinq mille wala dix mille ma dikk ne la ah sawaay doo ma tiim doo am dénkal lii ba suba wala gannaaw suba nga ne yii yàlla ñëw na yàlla ñëw na de waaye dénkaana jaar jàmbur yàlla ñëw na dëgg la yàlla ñëw na waaye moomoo li yàlla ñu indi ci dem yàlla indi la ko dal moomoo ko dan laa dénk kon damal denc kon yonente bi saa sama doy na ci misaal ci dénkaane yooyu moo waral du dagal ci ab jullit muy war moroomum jullitam donte donte donte kam yi wor daganu mu war moroomum jullitam waaye daganu mu war koo xam ne am noonam la am noonam la ab jullit du lor du du du wor am noonam léegi-léegi nga gis ñi ñi ñi tukkikat yi nan ma baal ne ci àll bi di jëflante ak tubaab yi ci alal di war tubaab yi donte du ab jullit yaa ngay def lu xaraam tubaab bi lebal na la delloo wala nga fekk kalfet jaamur jël wala nga fekk nangam jël fekk moom dafa soppi ko wala moom mànde wala mu def nangam la ngay def lépp donte moom du ab jullit yaa ngay lekk lu xaraam ba noppi war nga kon ab jullit ab ab jullit du war ab koo xam ne am noonam la wala du war koo xam ne sax du ab jullit kon nan bàyyi xel yéen ñi tukki ci ci àll bi ñu ngeen di jëflante ci du ay jullit fexe leen lu ngeen waxante ak ñoom nay lu wóor lu ngeen diglante kun ci la bali na nga fa na nga fay na fay donte yéen da ngeen a sore te bu kenn fekk alali jaamur loo xam ne du ab jullit nga jël ko naan lii xéewal la du xéewal de alali jaamur la da nga koo da koo da nga sàcc wala nga jël ko wala nga triyaa ko nga def ko wala nga fekk mu sëpp nga sàcc bu bu àlligéey loolu bakkaar la ci kaw kon loolu la jullit dañ koy moytandiku loolu bokkul ci du dagan ci ab jullit muy muy jëfandikoo jëfin boobu moo tax su mboro wax ne ndax du ngeen ragal ci aw nit war waraange ba bana aaya ja a ci mujjante ne inna laaha laa yuhibbul xaa'iniin yàlla bëggut ñi nga xam ne ay warkat la abi xurayra nee na deel jox addil amaanata ala man istamanaka delloo ndénkaan yi kóolite yi te ki la ko ki ko dénk waaye nag te bul war mukk ki la war nit bu la waree tamit bu ko war loolu mooy jukkee jullit yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne man ñetti mandarga yi jullit bu mu nekk ci yow am naafiq nga ayatul munaafiq salaasa jullit boo xam ne lu mu wax ñu ne du dëgg kooku naafiq la te léeg-léegi nit toog ci garam place sawaay bu demee gaa yi wakkante sawaay lépp lu mu wax dëgg wala se sawaay gi ñëw de waaye lu mu wax ne leen waaw dara du ci dëgg képp kun jullit kun xam ne yow loo wax du dëgg moom naafiq nga ci yow ayati munaafiq salaat ida xadasa kadaba beneen bi ci des mooy mooy saa yu la joxee rendez-vous faussé de loolu nag moom daanaka jukkee na ma yàlla baal jukkee Sénégal la Sénégalais yi bari naa fa ñëw suba bu ngoonee nangam nangam bu ngeen dajee mu ne hee dama amoon nangam dama amoon nangam képp koo xam ne loolu sa jukko la rek naa fex la nit day fonk kàddoom beneen bi ci mos mooy ku la wóolu nga war ko nit bu la wóoree nga war ko ñetti mandarga yooyu yonent sax sama ne ku mu nekk ci yow am naa fex nga kon ca gëm yàlla du sax mukk ci doomu aadama lu dul dafa sori dafa sori ak ak wore ak wor doomu aadama moo tax yonent bi sax sama ne woon laa imaana liman la amaanata lahu bala nga am ak gëm yàlla nee na day fekk nga am amaana waaye nag wala diine liman la ahda lahu bala ngaa am diine mooy day fekk ngay sàmm ahd mooy li ngay dare moo waral bokk na ci xiyaanatul amaana mooy waru amaana mooy ci diggante afraad da mujtahid mooy tabaaxut mooy bañante yoo xam ne dafa indi ak xëccoo wala ñaaru ñuy jëflante maanaam kenn ki bëgg a teg diil moromam li xew ci li xew ci jamono da ngay société kii liggéey wala ngeen am lu ngeen seet wala nangam nangam moom intérêt am lay xool yow xoolu si intérêt mën daal waa ji dafa ko bëgg a teg diil wala moo xam ak tubaab la moo xam ku mu mën a doon nga xam ne yalañ seet rek mooy jëm koo teg diil lekk àll wala nangam nangam dem yooyu yëpp ay ay ay xiyaanatul amaana la te loolu julli bi da ko may da koo moroom may tudd bu ne nag baat mooy sàmm sa kàddu ki kàddoom da ci ragal yàlla bokk yi suñ kàddu yi ñuy génne dañ ciy wax nañ ci ragal yàlla buñ ko wax rek ngir bëgg lu neex doomu aadama yi nan ko wax ngir jëm yàlla bari na ñuy ñékk fii di wax di ngawti ngawti ngawti ngawti nangam nangam ak ku mën a doon te kaddu ko boo ko diglu da nga xam ne kii àndut ak ragal yàlla léegi-léegi kaddu par par loolu lay doon te tamit kaddu kenn du ci leble wala ñu ci fay bor te bari na ci ñoo xam ne seen kaddu dañ ci leble wala ñu ci fay bor maanaam bëggoon bëggoon am koo eneen wala koo jëlal sipson wala lu bëgg bëggoon a wax dara jaarloo ci biir wax ko yooyu kenn du ko def ci biir kaddu kaddu boo koy wax da ci ragal yàlla da ngay wir da ngay wir ne yow li ngay wax yàlla képp moo tagg di ko wax bu ca bëgg ku la tagg bu ca bëgg ku la li fekk demoo ci biir kaddu la sëñ ma Cheikhir may waxoon bu fa ab jullit dafa war a toll foofu maqaafata zammi wa xubbul matxi li shaxsin yujibaani kullu xaf sëñ sëñ may nee na ragal ku la ŋaañi bëgg ku la tagg bépp jullit bu mu ne ci yow bon boni adduna yaa ko boole ab jullit dafa war a tagg ki kay tagg naan ko jaa ak kinaan naan ko yaa fi ñaari bànneex yooyu yem ci moom man nag koo laa toll man Cheikh Abdou Diop jërëjëf ak yaa fi yées ñoo yem ci man ki may ki lay tagg boo léegee moo lay xas ki lay xas boo léegee moo lay tagg kon ñaari bànneex yooyu bu yemul ci yow boo léegee da nga am problème maqaafata zammi wa xubbul madxi li shaxsin yujibaani kulla xotfin la sëñ ma seexari bay wax waajur sëriñ sàmbay kon nan góorgóorlu suñuy kàddu ñu di ci ragal yàlla te li ngay waxee ne yàlla tax bu bu ma sàmba tax bu ma demba wax tax bu kenn tax booy wax ak kum mbooloo ma bari bari bari ak lu kilifa ya bari bari sa kaddu na yàlla doongu tax ki nga ki jëra sóoraale mooy yàlla ki jëra sóoraale ci kaddu mooy yàlla keneen koo ci sóoraale bu àllëgee mën na laa mere waxal la loo xam ne yow waxoo ko kon nag nañu bàyyi waale xel loolu bokk yi ni mu jëntale mooy kaddu googu ma la wax nit ci kaddoom yàlla mën na ko boole ci daraja siddiqina bu àllëgee mën na ko yóbbu àjjana nit ci kàddoom suñu borom mën na ko yóbbu ci sawara jahannama ngir ngir ngir kàddoom kàddu gi mën na ci amee àjjana waaye kàddu gi ëllëg mën na ci ame sawara kon fexeel ba sa kàddu yow nga di ci am nga di ci amee àjjana moo waral doomu aadama bu ci nekk buy wax nay wax lu rafet ca bañ di wax lu ñaaw fii ñu fii ñu toll nag nga xam ne danoo léegi dugg ci politiciens yeeg ñëpp di wax ak ñi nga xam ne ay opposition ak ñeneen ak ñi nga xam ne ay militant di wata ak yu nañ jéem a rafetal seeni kàddu xasante bi jëru ko waxante lu ñaaw di jëru ko kenn ku ne wuñ sa awray morom sa sa sa awray morom jëru ko yàlla noppi na ca mooy joxe nguur ca kan koy jox pare na ca kan koy jox pare na ca askan wu ci nekk fexe leen bu leen ñaawoo penc mu ci nekk fexe bu ñëw kum neexu kala neex watale ji ko kala neex sopp ko kala neex bëgg ko waaye ci njëkk ak ci lu rafet yàlla noppi na te kay jël réew mi bu àllëgee jërul xeex jërul xuloo jërul sànni xeer bu ku falu la ñun ala ñu fale woon lu ñu defal kenn ku nekk say gaay ngay fal nekk sa bopp ku loolu daa jara xeex jara waxante lu ñaaw jara waxati nangam yal na nu yàlla defal dëggal topp yaxfirullahu lana wa lakum wa li saari muslimin amin